leçon numéro vingt-six masalikul jinaan xadd sa yaxal na sayxuna sannusiyu sunu sëriñ ba ñuy wooye imam sannusi sharif te muy sëtab rasulillahi radiya anhu yal na ko yàlla gërëm adëhra diirab jamono rabbuna latiifu sunu borom moomee nga xam ne mooy aji ñiwenteeja yal na gërëm imam sanusi amin diirab jamono sëriñ tuuba neena imam sanusi neena bi annaha naka julli ci yonent bi tuux ni doy na sëkk anil murabbi ci sëriñab tarbiya bu dee jàng nga fiq jàng nga tawhid jàng nga tasawuf ba géeju ci xam-xamu diine ba noppi te bëgg sëriñëb tërbiya ku lay yar gën a toj sab xol ba nga gën a nooy mel na yàlla bëgg te amoo ko gisoo ku la tane lu dul caaxaankat yi rekk mu nekkoon na nga jàpp ca julli ca yonent ba def ko sëriñ li jas bihi ngir ñoddi gi muy ñoddi alfataawaaju baax li qurbi alhibbi ngir mu jege ka yàlla sopp di yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndeysaan dalay jegeloo yonent bi te ku jege yonent bi jege yàlla ku jege yàlla dem ajjana moom julli ci yenent bi masaalikul jinaan pas trente sëriñ Tuubaa nee moom julli ci yenent bi aydan ba tey tasturul huyooba képp ko koy def yàlla dalay sutural ci say ayib dellu sutural la ba dootoo mën a jëngati jëm ci jenn ayib wa yaxfirullahu te yàlla dina jéggalee tey dina jéggal kay julli ci yenent bi bihaa ngir julli ga muy julli ci yenent bi zunooba ay wakkaaram ndeysaan wa annaha naka ak julli ci yenente bi kala itqi mi ngi mel ni goreel ab jaam fil ajri cib yool kama di hawa ijëllesi noonu it la yàlla di faja aajooy ki nga xam ne laxaa ay julle ci yonent bi intama askanoona ci jëmmam ja ma ngi koy defa ka defaat rek saxal ko kookee yàlla day faj ay aajoom wattu silul habda julli ci yonent bi dina àggale jaam ba ilal jinaani ba àjjana yàlla ko yàlla may xaddan ëllëg wattat fahu ani niiraani julli ci yonent ba dinal fegal ab jaam ba du dugg sawara ndeysaan wa annaha naka julli ci yonent bi tunawwiru sawahira dana leeral biteeb jaam ba ko saxoo bépp jaam yàlla buy julli ci yonent bi yàlla day leeral sa biti ala tifaaqil xawmi nii lañ ko saxala ci dëppoog mbooleem woroom xam-xam ya wasaraahira julli ci yonent bi tamit dina leeral biirëb jaamab yàlla bay julli ci yonent bi kon kuy julli ci yonent bi sa biti day leer sa biir day leer ndeysaan wa annaha naka julli ci yonent bi tuujibu yowmal aqi dina waral keroog bis muy keroog bisab dëgg ba safaatal muxtaari ramoom yenent bi xayril xalqi ka gën ci nit ña ka gën ci bindeef ya képp ko saxoo julli ci yenent bi dana waral keroog bis penc yenent bi ràmmo la salla wa salama rabbu yal na yàlla dolli teraanga ak jàmm moom mi boroom lépp ci yonent ba amin wala li ta eggale ko ca ñoñ yonente ba wasaabi ta eggale ko ca ay saxaabaam waa man ta eggale ko ci képp koo xam ne yuuxu yi bu bëgg nga yonente ba yal yàlla dolli teraanga ak jàmm amin sëriñ Tuubaa nee na inna lazi naka njariñ yu kowe nga xam ne xawat am na ko moom julli ci yonente bi njariñ ya nga xam ne am na ko minal manaafihi ci ay njariñ yoo xam ne day jariñ jaamab yàlla ba ba ajjana njariñ yu kawe yooyu nga xam ne julli ci yonent bi am na ko huna fii wa anna ak fële ca ëllëxira faataraw na jamhal jamihi mbooleem ñay dajale njariñ yu kawe ya nekk ci julli ci yonent ba ña koy dajale dajalekat yeey yépp mënuñoo fexe ba dajale teraanga yu kawe ya ca nekk ak njariñ yu kawe ya nekk ci julli ci yonent bi fa kullu képp koo xam ne adama saxal na ak julli ci yenent bi fi kulli ayn ci wépp waxtu fa inoo naka kooka axasa ngoy na jàpp na bil hablil matin ci buum gu dëgër te bu ko téyee ba dana am ngërëmal yàlla xat sanafa taalif nañu al axyaaru tànneef ya kutuba ay téere fiiha cik julli ci yonent bi nafisatan téere yu sell te wëlloore wakuluhum kenn ku nekk ci ñoom xat sawaba jubal na rafetal na waye nag ama kitaabu sayxinaa ndaal téere sunu sëriñ ba an na jiibi te di ko wooye tànneef téere booba ah nii li ma bëgg nga xam ko mooy téere booba allazi mooy téere ba nga xam ne yu doxaa dees na ko wooye bi naf yi tiibi ci xet gu neex gay bun buni muy gëtt gu neex gay bun buni mooy turu téere wa sunu sëriñ kay tànneef nag moo ko bind mu ne téere booba faxat xawaa am na maanaam laq na maa ixt ixtisaari ànd ak gat gàtt téere booba am na kullama lépp loo xam ne faraxoxoo wasaare woon nañu ko almusannifoona woy taalif yu sell ya nga xam ne alxudama ñoo fi jiitu woon mu ne ku jàng téere booba doo ca ndax téere bu gàtt la waaye mboolem njariñ ye téere booba andi na ko tuuba ajjana liman ñeel na xam ne yaqra'uhu ma ngay jàng téere booba mu abida ta saxoo jàng ga ndax li anoo naka téere booba yakkufuhu dana fegal ka koy jàng alxawla tiitam bis penc xadda ëllëg lakki na ma waaye dalailul xayraati téere ba ñuy woowe dalailul xayraati laysa yummalu kenn mënu caa yokkat minhu ca téere booba ngir njariñ yu kowe ak julli yu sell ci yonent bi ya ca ne fil ci mboolem waxtu ya kenn mënu caa doyal moom dalaayul xayraat ndaxam léegi de xasaayiti sëriñ Tuubaa romb nañu téere yooyu yépp amaal kunoosu ndaal téere ba ñuy wax kunoosu fa huwa moom xayruma mooy ngën ji téere ba nga xam ne xara jàng na téere boobu abdun jaamab yàlla yaroomu buy sako an yanaala ngir mu am safara ak tuufu maanaam fajuk aajo mu ne ku bëgg am aajo yu faju ci lu gaaw jàngal téere ba ñuy wax ku noosu rek ma ngay lim baax ak gaa yu baax ya ak baax ga mu baax téere gaa yu baax ya moom sëriñ Tuuba ndeysaan wa nubsatul xut bi am na téere bu ñu wooye nubsatul xut bi alwaali yi bàyyikoo ca kilifa ga abdi salaam sang bu ñu wooye abdi salaam mu ne téere boobe bi nubsatul xut bi muy dogab kilifa ga noonu la téere bu tudd dogab kilifa ga mu ne téere booba afdalu ma mooy ngën ji lépp loo xam ne alfata waaju baax raama ma ngay sàkko bii ca loola almaraam ay càkkutéefam kon di téere yépp a baax mu ne kuy sàkku say càkkutéef mu gaaw lool yàlla saafaral ko jàngal nubsatul xut bi rek muy dogab waaju baax ja téere bu kawee ngooga te gaaw lool ci fajuk aajo ci waaju baax ndeysaan